tay ci suñu spécial kessu rajab dama mujjé ñew rek fi nga xamanteni modi nindi daldi fédo ko sama xarit di soxna mam diara soxna mam diara actuellement ma nga fa nga xamanteni modi keur serigne rafa rafael ma nga fofu nonu ba ma jógee nag ci ki nga xamante ni moo di soxna wàllu mu sëriñ Fallou euh, maa ngi fii ci kër sëñ Abdou Karim euh, ma fekk fii ki nga xamante ni moo di euh, Seydina Aline wala Aline Badara Zikrullah Baye Fall ñu ngi lay nuyu di la ziar di la jaajëfal. waa noo ngi noo leen di fay di di di wax ni xanaa di rafetlu seen teewaay di wax ni ñoo ngi sant yàlla jul julli naa Seydina at di sant Cheikh Ahmad Bamba Khadim Rasoul di sant nag suñu fàllu borom bis bi di sant di ko sante fii nag ci biir kër Cheikh Abdou Karim Mbacke Falilou lay fay. Ah, dégg la euh, dafa mel ni nag màggal gii di màggalu Kazu jat na moon nan ko ndax it deux ans ñu ngi fàttaliku mbas mi bi mu amee ñu jotoon ndigal ci euh, le xalif général des Mourides El Mountakha Bassirou Mbacké di ñaan mu yàgg fi loolu te on ndëkk wér ñu daal di woon rek euh, ajandi lu ni mel ren nag ñu ñëwaat ci nga gis ni taalibe yëpp bàyyi ko fu ne ñëw tey la lay def. waaw lim ñuy def mooy sëñ Fallou magalam gi nit ñi dañ ko namoon xam nga ñaari at yoo xam ne doxaluk suñu borom la ndax ab euh, ab ab ab ab ab ab jàngoro ju nekkuñ ci réew mi def nak mu jeex ñaari at yëpp daanaka màggal gi dana am sax waaye ci fasat yi mu daan ndax lan daan def rek la ñuy def wàcce kaamil bernde waaye nit ñi dajaloo bi rek moo moo moo ci xaw a kii moo tax ren bi ñu ko indiwaatee nag dajaloo bi ku gis tuubaa xar xala xamut tuubaa ni mel xam nit ñi namoon nañ sin fallu bisam bi waaye moon nan balaa ma lay bàyyi rek nga dem parce que xam naa ni sëñ euh, sëñ euh, sëñ sëriñ bi mi ngi lay xaar yow lay xaar sëñ Abdou Karim xam naa da ñuy mosal dara rek yëkkati ko lépp ci barke ki nga xamante ni moo di bërëm bés bi di sëriñ Fallou. waaw li may wax ci sëñ Fallou nag mooy sëñ Fallou moom mooy ñaasu kalam sëlëm di ko dindi bi ci des mooy sëñ Abdou Karim Mbacke Fallou nag moom Raza Karim Ibnul Karim fa ismuhu Abdul Karim. a waraza karamatil Abdul Karim al mardum Fadal Cheikh Abdul Karim Mbacke Fallu dañ koy ñaanal yàlla na yàlla fi yàgg te te di ko njëkkee nag ci ci xalifa général di Mouride muy sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te di ko ñaanal magam de sëñ Abo Albaraka magam ñëpp ñu ngi koy ñaanal waaye moom ñu ngi ñaanal naal bii mu naal ànd ak taalibeem yi ak ñëpp ak soppeem ñëpp yàlla nañ ko àndandoo ci barkeb Sëriñ Fallu téeméeri ak yu ànd fukk ak ñett barke yoon ci yàlla Muhammad la ilaha illa lay faal na duura azulul bay faal para albadu alayna sadiya dinati baaf ajita saraye ak sopp Seydina Muhammad foofu laa ko yemale. macha allah di rek jarul ma leen di fàttali ki nga xamante ni moom laa taxaw taxawal fii ci kër Serigne Abdou Karim Mbacke.